ngoor ku nekk ak sa tooy ku nekk ak li ngay dégagé loolooy kaa parce que bu ñëpp ñun bu ñun ñëpp buñ bokkoon guu kon kenn duñu takk ñàkk bokk guu moo tax nga am suppu kànje dem wuri daa dem wuri lii lay dëgg bokk ñu cafka de bokk ñu man duma nangu ko ñoo ñoom bokk nañ dagg mais bokkuñu cafka ku nekk ak sa goût guu fraise am na goût menthe am na goût poivré menthe am na goût augmentation am na goût forcé am na guut trafiqué am na man moom guut trafiqué laa dëkk man moom samay guut dama koy trafiqué man dara safuma man damay trafiqué ay guut macha allah damay trafiqué ay guut moo tax ku ma xam tey takk ma man damay xamante nit un mois deux mois nga takk ma du mosuma am relation six mois mu mën la bee sa jëkkër un mois mu takk ma sëy bi nag mën na bañ a yàgg parce que yéen da ngeen di gëm ay xarfa xuufa da ngeen di gëm ay ay njalar gëm ay njabar gëm ay dëdële man gëwuma loolu te ñàkk koo gëm nag moo tax ku ma ci woo ma bàyyi la ci parce que man góor jarul ma dem ci sëriñ di yàq ndax ku ne xam nga fi ñuy yàqee ku ne am nga xaalis bi ngay yàqee ndax kër gu mel ni ku ko am ñàkkoo 2 millions yooy dem yàqee mais daal di que man sama yaay yaruma ci sëy di yàq man su ma gisee su ma duggee ci sëy sëy bi am ay yàq damay retiré waleen te à chaque fois ma retiré wu nag à chaque fois yàlla may ma ko gën nag kaa leen ma wax leen kaa bi déedéet kaa bi dama koy traité ak Miss Ndiaye parce que Miss Ndiaye dafa soxla ku ko wax dëgg ubbil sa noppi nga def ci ñeex nga def ci kii nekkal nit góor bi nga am ñëpp bëgg nañ koo am su nga sa jëkkër jooju bu ma doxaanoon man ma jël ma wax la dëgg bi Aziz Ndiaye bi ma ne woon na bu I love you ma ne ko me too bu ma waxee I love you midi midi deux ma ne ko me too parce que mel na ni mu war a mel jantal na Aziz Ndiaye macha allah Aziz Ndiaye mën na ree Aziz Ndiaye mën na kaf Aziz Ndiaye yor ay biceps yor na ay triceps yor na ay double ceps yow loo bëgg miis Aziz teral na la yow li nga am ci Aziz ñu bëri sëy nañ ko amuñu ko seen i kër ñaata jigéen ñoo fay sëy dépense sax amuñu ko seen waa seen jëkkër duñ leen jox dépense yow am yow waxoo waxu dépense yow jooyoo facture yow jooyoo ordonnance yow jooyoo dara yëkkati nañ la nii teg la ca kaw te suñu kanam la ñun ñëpp képp kuy sénégalais te wax waxu dëgg gis nañ ko fi jëkkër ji nga am jëkkëru njëkkante la bu la ay détail dugal ci ay fase naa ko ay gedd naa ay tas naa ay fay naa bul fay toogal nga sëy sa sëy sëy bokku wërsëg la yow xamoon nga ni allah kulli aal di nga am wujju ndax dangaa fekk si allah kulli aal di nga am wujju dangaa fekk si boo fekk si sax di nga am wujju fii ñëpp ay am wujju te ki ñi amagul wujju nag xaar leen seen time fii ñëpp ay takk góor ñëpp ay takk ma chérie ñëpp ay takk fii amul sax ay bu takkee ma boo bu takkee boo demee yaa xam bu bu takkee keneen boo géddee yaa xam parce que ma chérie tojoo fenn meloo nenn tojoo fenn te meloo nenn tojoo fenn te meloo nenn loo waay am taar taar taar taar boo xoolee ci sa gi gis ku la dàq gis ku la dàq pour lan ngeen di fay seeni sa dem toog am na ñoo xam dañuy fay dem toog France un an profité naan dañuy faju ji fekk dañuy kii loolu sama cas personnel dama ko si ruuxaar xam ngeen man dama bëgg cas toog un an di faju naan danga fay ma ne jéeg buux na fi jéeg ba sonn mais dama bëgg miis nga toog nga gérer sa sëy nga sëy sa sëy nga toog nga gérer Aziz Aziz góoru njëkkante la Aziz du pas Aziz nekk troisième âge ñun ñii si ak troisième âge ñoo ngi bëgg a dee te buñ ci mënoon génn génn ci ndax danoo sonn ci troisième âge gi yow yaa ngi am góor première âge et demi zéro huit mois zéro huit mois nga am góor zéro huit mois góor boo xam ne macha allah moom moom j'adore moom moom moom moom moom moom euh, riz moom huile j'adore yow sa jëkkër li muy def ci ci ci ci ci économie Sénégal sax loolu ndam la sag la. ndax au moins mi ngi mi ngi réduire chômage bi mi ngi bokk ci lu bëri yi fait du social yow lan la mis wat a wat Aziz mënoo koo for wan na mënoo koo lekk Aziz du raisin booy lekk wan na ko Aziz du raisin mënoo koo log wan na ko xamaan la may mayonnaise la da ngay dagg sama morom cap da ngay cap comme cap nga ba sa mburu tooy da ngay bàyyi Aïcha mu ndaw cap Aïcha day cap Aïcha mburam bu tooyee moom tamit un jour viendra Aziz jël beneen sumool Aïcha teg ko ci kaw Aïcha foofu la nag mais bul met amul met amul yàqlaate amul mer amul yàqalaate amul woote amul dara bësal sa xol wujju neexul bësal sa xol bësal sa xol da bës sa xol nga toog nga sëy lii la nag de sëy na kaani waxal yow da nga ndëkk rek ci suukar mais kaani gi xamoon nga ni tôt ou tard da nga ñam kaani Aïcha nag ñëw ci Aïcha miss moom comprendre nga li ma la expliqué toogal nga muñ sa muñ Aziz góor gu baax la góor bu jantal la Aziz teral na nga oto bi ngay dawal gouverneur yi sax dawaluñ ko ministre yi sax dawaluñ ko miis bul yàq sa sëy ndax ay kii wax na say copines yi topp lu naan Aziz na tem pas Aziz tem miis n'écoute pas tes copines qui te disent que oui Aziz ne t'aime euh, su la waxoon daf la waroon tàggu lu tax mu lay tàggu lu tax mu lay tàggu sa kilifa la bu ko neexee def la ko mu lay tàggu lu tax tàggu doo yaayam jabaram nga mais doo yaayam juróo ko dañu waxante dëgg tamit yéen di ngeen jël position wu jabar multiplier ko def ko yaay du sa yaay moom mënoon na la tàggu peut-être moo gën a rafet si ngeen bokk kër jabaram nga et mais yëg na ni tàgguwu la peut-être am na yëg-yëg ni tàggu wa def na li bëgg a def mais sa borom kër la fekk si ko ci li mu bëgg parce que kaam la de mu neex la mu naqari la lii moom dafa waroon am te même bu dañee sax même bu dañee sax keneen dina fa ne maanaam yow même bu Aziz bàyyi woon Aïcha sax au pire des cas bu amoon sax Aziz du bàyyi doxaan Miss Aziz mun naa la wax cinq personnes yu mu doxaan fii live and direct te xam nga xam naa Aziz du bàyyi doxaan léegi au lieu que muy doxaan ñëpp xam ñu muy doxaan fii ñëpp xam nañ ko mu doon doxaan man xam naa ko sénégalais xam nañ ko léegi au lieu muy doxaan ba fekk imagine mu ëmbal mbedd nan ngay def bu sa jëkkër ëmbaloon ci mbedd bi mooy def loolu gàcce la sàcc ba ëmbal loolu loolu nekk c'est la pire défaite pour une femme mais au moins takk na par respect takk na indil na la mais yow jëlal nga boot luy kaa bi luy wax ji nga topp sénégalais yi naan la waroon na loo ko avertir non Aziz tem Aziz ni mu la teewee góor ñu bay teewuñ ko seen jabar je te dis la vérité man jigéen laa comme yow mais li may dund ci sama sëy gi mënuma la koo expliquer Aziz ni na yore góor ñu bëri yoruñu ci seen jabar noonu toogal nga sëy sa sëy nga jubóog sa borom kër nga jël say ay jënd ci intimat yi waxoon naa ne intimat tôt ou tard day am bés nga jël ci intimat yi defaraat sa bopp parce que tamit da ngay beesalaat def jël moteur bi vidé ko def ci ay yokk ci ay huile yóbbu vitesse bi euh, yokk il faut nga defaraat sa bopp parce que Aïcha mii ma gis ah Aïcha nag rigal na mag ay Aïcha mii ma gis ragalut Aziz ak kay bi c'est vrai ay Aïcha bi war a te Aziz naan ko nii oh my god euh, nu mu tudd ma chérie miss aaw buur këram aawa yaay yaay sunu aawa xam nga ñaareel nga aawa bi dafa dem macha allah yan ko yàlla xaare àjjana yow yéeg nga ñu place am léegi ñun duñ la wax ñaareel tànta dañ lay wax aawa yaay aawa yaay aawa yaay ma woyal la yaay sunu aawa yaay sunu yaay aawa yaay bëgg ñëwee ci kër gi dara ñaawul aawa yaay <laughs> sëy dafa metti nag parce que genre yi boo ko amee sa xol bi du ne man waxoon naa leen xolam mënu ne man man buñ ko takkee laa génne c'est c'est parce que kii influenceur wujju influenceur moo metti parce que day nekk di falaale sa xol bi day metti mais yëpp fair play la rek yow mu ñëlul Aziz nga toog yaay sunu aawa yaay sunu yaay aawa yaay Aïcha nag dina am bés Aïcha moom lim la def nii barki Seydina Mouhamed un jour viendra Aziz Ndiaye moom Aziz moom du màgget Aziz moo nga xam ne ba tey ni mel la mel Aziz un jour viendra Aïcha un jour viendra mu takk keneen teg ko ci kaw Aïcha boobu nag Aïcha bu génnee di wax dañ naan ñun ñu ñooy génnaat di wax wala samay doom man moom day fekk mu retraité di wax nan ko eh bàyyi ndax yaa defoon fii lii donc xam nga bëgg ma ngeen jël affaire bi def ko un débat c'est pas un débat ça arrive kër boo gis dina am concurrence dina am kii mais bu dugg ci internet bu dugg ci wax nga la waaye bul wax bul génn bul yónnee toogal ni nga toogee woon noppi ñëpp naw sa noppi toogal nga noppi nga toppatoo sa jëkkër xam ne ah bër wërsëg la rek te il fallait que un jour viendra ngeen bokk ko voilà Miss nag man franchement je t'aime beaucoup je t'apprécie tu es classe t'es pas dans le milieu on te voit pas et tout ça et je sais franchement blague à part que c'est difficile mais tu vois c'est la vie et l'homme on peut pas manger l'homme c'est pas un fruit l'homme on peut pas le manger on prend un peu on laisse à sa copine un peu c'est comme am na ay problème yu am sama commentaire gis naa ko fii mais dama leen répété xaw ma madame lii la xaw ma Lisa xaw ma Lisa sa jëkkër day doxaan fii góor ñëppay doxaan ñaar moo am soit jàppagoo ko soit jàppagoo ko soit jàpp nga ko mais dangaa taay ci moom te bëggoo tas soit jàpp nga ko ba sonn mais yow yaa bëggul tas amoo choix amoo foo jëm nga toog ñaari cas moo am day doxaan mosoo koo jàpp mais yaa ngi dute mais mosoo koo gis parce que day nëbbatu di nga def bu ilaa jàpp nga ko ba sonn mais comme am nga foo jëm amoo xaalis indépendant woo financier amoo def donc ci rest mais góor ñëppay doxaan alerte rouge alerte rouge tous les hommes trompent <laughs> ngeen noppalu alerte rouge alerte rouge tous les hommes sénégalais draguent tous les hommes ivoiriens draguent góor ñëppay doxaan chéri loo neex neex loo saf-saf am na ku la gën a safle xale yii danoo safle ñun sax deuxième âge ñun trent ans yi sax léegi ñu commencé régresser mais xale yii danoo safle danoo judd safle naturel xam ngeen li ci saf yéen góor ak saf c'est une longue histoire góor recherche le saf noppalu leen ngeen dugg ci commerce bi ngeen liggéey noppal seen yaram ji ngeen bàyyi góor ñi góor kenn du ko lekk ba mu jeex man vraiment man bu ma amoon jëkkër bu ma may ay millions na takk na takk mi naw mi kàmbal xool sama yoon néew si hmm, mu yoon dugg nga ma ci kër jox nga ma kat-kat hmm? yaa ngi may toppatoo guddi yaa ngi ma jox sama dose hmm? c'est important dose bi mu ngi ñëw normal maa ngi voyage première classe mais lan moo sama yoon lan moo ci sama yoon takkal boo sonni di nga toog mais di mer di tas kii yooyu amu fi sens man duma ko def de kii mu ne sonn et le respect mais quel respect mais de quel respect tu parles ma chérie de quel respect de quel respect tu parles de quel mais vous parlez de quel respect respect weesu gën sa jabar takk ko yëkkati ko lan ngeen bëgg lan mooy respect si ku du takk jabar bu dee respect moo du takk da ngeen juum ils sont irrespectueux dinañ takk vous êtes malade vous góor takk la jëlee la ci pauvreté. dugal ci luxe nga màgg ci luxe yaru ci luxe dem si ay quad sali ba mu doon dem quad sali foo leen nekkoon du da doon dem mi da doon dem sali def quad naan nii vurum vurum ci désert léegi ay saa yi mën a Dubaï di vurum vurum léegi luy wax jëluy kaa bi ba respect Aziz il est respectueux Aziz a bien traité son épouse moi je le dis il a bien traité son épouse et s'il veut épouser une autre femme c'est son choix le plus absolu et c'est son droit et les hommes yàlla dafa góor ba ñeenti jabar ngeen doo leen ay musulman ay ay yéeféer ngeen yéen sénégalais yi yëpp ay yéeféer lañ parce que mu mënuma comprendre yàlla mi ñu ñëpp di julli mais lu tax ngeen julli kon léegi lu tax ngeen julli nga estandil ngeen yàlla ni góor am na droit ba ñeent nga xam ko sa nday xam ko sa ndayu nday xam ko sa baay am ay jabar yow ma ne sa jëkkër du am keneen pour kan yow yaay kan ak foo toj ak foo toj foo toj bon respect respect weesuul nga takk la takk la dugal la ci kër yor la yor sa njaboot yor la yor bu ba képp kuy jigéen Sénégal naw la ñee la lan nga ba lan mooy respect lan mooy respect mais vous êtes malade en fait moo tax góor ñëpp a ngi takk parce que da ngeen ay jabaate les femmes là vous êtes jabaate yéen ay duma wujjee ay duma nii duma nii moo tax seen jëkkër yëpp a ngi doxaat moo tax li leen metti man teguma leen ko de leen metti mooy ñoom ñëpp ñu ngi coucher dehors ils sont tous en train de coucher dehors xam nga lan mooy danger bi sa jëkkër bu takkul sax d'accord naa sa ndam la mais li muy def ci biti xoolal sida baa ngi ci dëkk bi MST banque ci dëkk bi diabète baa ngi ci dëkk bi y a plein de maladies contagieuses qui sont dehors bàyyi sa jëkkër muy doxaan nag danger la le mieux mooy mu takk présenté la nga xam yow ki ngay wujjal kan la mais ñàkk fayda weesuwul yow ki ki ngay wujjal kan la ñàkk fayda weesu sa jëkkër yi dem si hôtel yi sa hôtel sa jëkk xolal hôtel yi ak baar yi homme marié yi ñoo ko feesal les hôtels là les bars hommes mariés yi ñoo ko fees appartement meuble yi ngeen gis yëpp seen jëkkër yi ñoo ko jël xale jigéen ñi dong mu neex leen ak mu naqari leen donc le mieux moo tax mu mu gën mu takk le mieux moo moo mooy mu takk vraiment vous vous êtes fatigant vous voulez que l'homme reste avec vous tout l'année des dix ans cinq ans de mariage avec vous vous êtes qui vous êtes qui what your pussy can do you even can break the bed what's the problem La plupart des femmes qui parlent comme ça, elles ne peuvent même pas bouger le rein. Il faut les voir avec les reins bloqués là. Elles ont déjà les reins bloqués, les formes bizarres, un visage compliqué, mais c'est elle qui dit que hein, mon mari n'ira ton mari va voir ailleurs. Que tu le veuilles et que tu le veuilles pas, que tu le saches et que tu ne le saches pas, il est en train de mourir dehors. Voilà, il mouille bien dehors. c'est ça. Qu'est-ce qu'il y man suñu mbokk eh rentre chez voilà neexalatuñ kenn xam lan la takk na mer nga ñibbi sa kër yaay di nga xam ne kër yaay kër yaay de du kër kër yaay ñibbi sa kër yaay bu la bu la bu la problème yi méttee ba metti la kenn man léegi conseillé tuma kenn kàmmiwu ma kenn xam lan la ku sa jëkkër takk nga mer ñibbi sa kër yaay ñibbi sa kër papa voilà dem do am ngeen ay kër baay dox leen seen kër baay bu guddee seen baay fekk leen foofu bu dee seen baay mën na mën na mënal na leen ay raaya ki foon dem leen inceste la loolu inceste la tudd inceste <laughs> les cas de ce pays m'intéressent j'adore les cas mu ne rentrez chez vous rentrez chez vous papa hmm? maa ngi nii ba sama duma dem maa toog ba sama kër papa amul foon amul raay ma taw yooyu sociaux yi di yuuxu dawuma fii laay toog damay sëy moom suñu portable amul raay amul phone ma toog si naan dew ma tasuma parce que raay ak phone jaral na ma man xaru. excusez-moi dama nekkoon si si téléphone bi. j'étais au téléphone euh, revenez revenez revenez revenez revenons revenons revenons ça rajeunit oui parce que dafa am beneen cas bu bees mais je le traiterai après j'ai rajeuni j'ai devenu plus belle plus joyeuse vous savez quand une femme devient plus joyeuse c'est parce que <laughs> quand une femme devient plus joyeuse c'est parce que parce que trois mm-hmm, bonnes suspensions bàyyi ba cas mais vous êtes fatigantes les filles laissez-le épouser en plus comment une femme peut qu'on peut rester ah avec un homme yow ku góor ki nekk ci sa kaw yow kase sa yaram yéen ragaloo leen yéen yaram yaram bu tas yéen yaram bi mooy tas da ngay jékki-jékki rek sa épaule bi wàcc si tu veux être fraîche là il faut que ton homme aille ailleurs avec ses coépouses bu demee ci wujju bi sa wujju bi bu def amee ñaari fan ñëw si ñëw ñaari fan doy na si jigéen mais jigéen boo xam ne yow sa jëkkër 24 heures sur 24 yow la 24 heures sur 24 xoolal sa sa pour ñu def pour ñu def science de la vie ak médecine fii dafa am benn colonne bu tudd le colon <laughs> lëkkaloo rectangle bu tojee xoolal ko rectangle mooy tax doo am faar moo tax ngay am ay ventre plat léegi bu sa jëkkër tojee kolongu kolongu rectangle bi hmm, da ngay commencé màgget say tànk day commencé bañ moo tax wujje dafa baax parce que day dem fële ñëw ci yow dem fee ñëw ci yow léegi bu demee def sa defar sa kër xam nga def ay gommage soin du visage ay intima sa yaram bi su ñëwee nga yëkkati ko tourné ko capté ko dooraat ko mu dem na le affaire yi noonu la mais yow rek ci kër gi yow rek ci kër gi bu ñëwee rek guddi rek ngeen dem en avant chaque guddi rek en avant tous les soirs en avant mais bu yàggee sa avant day peer fii day peer ak fii day peer ak yii yëpp day peer yii day peer yii day peer si jigéen te jigéen warul peer ak sa yii yii yëpp day yàqu parce que dalay nag naan la ni <laughs> yàlla bu mu la xoj <laughs> allez télé si yéen de waaye góor ñi ñu takk baax na man bëgg man bëgg man moom franchement je ne je ne veux pas être première bëgguma musuma bëgg nekk aaw parce que amul sens aawa góor dafay jàng yor kër ci yow aawa du dara aawa xam na la jàng yor kër la aawa mooy fondement mais kër boo gis finition la du fondement est-ce que nit mësu dëgg ci fondement fondement kër mooy aawa léegi da waa ji day takk premier étage mu xool mbedd mi mais su bëggee gis géej gi foo mu teg deuxième étage mais su bëggee am nag vue foo mu teg troisième étage ci troisième étage nag ngay taxaw di seen nag mbedd bi di seen nag géej bi ak vague bi boo bëggee nag gën a am air de mer teg quatrième étage loolu mooy ñeenti jabar waaw man bañu ma sax nekk ñeenteel franchement man du moment que maa ngi buum rek sama jëkkër aussi mun ngi jox sama dose man daal sama kër papa daal dama fa dem parce que amul fóon amul raay sama papa duma fóon duma raay sama papa dee na sama yaay aussi mënumaa fóon mënumaa raay donc je préfère rester dans les bras d'un homme mooy fóon di ma raay di ma nax chérie tu la plus belle je t'aime tu celle qu'il me faut tu l'amour de ma vie man fen ma fen ma ment moi j'adore que mon mari me mente mon mari me ment j'aime ça chérie ment moi Dis-moi que je suis la plus belle. Or que c'est faux. C'est la petite fille du quartier qui est la plus belle. Mais chérie, moi, moi quand même. Chérie, dis-moi que je suis la plus bonne au lit. Mais c'est pas grave. Tu as quelqu'un d'autre dehors. Mais c'est pas grave. Moi, moi. Laissez, laissez vos maris vous mentir, mes amours. De... <laughs> Des <laughs> le mensonge, c'est doux. Nabou, yaa yaa mos ngir ñetteel nga yaa ngir ñetteel ma man ñetteel moo ma jig ñaareel sax jiguma parce que ñeenti fan laay am ñetti fan laay am dafa bëri man dama bëgg pourtant man bu ma amoon maanaam ñeenteel sax moo ma gënal parce que bu demee si aaw bi benn fan dem si ñaareel benn fan dem si ñetteel bi ñaari fan ñëw si man benn fan man benn fan rek doy na ma parce que bëgguma sama colon bi toj je n'aime pas que mon mari chaque nuit là chérie couche-toi par là fais comme ça tourne <laughs> assis comme ça debout comme ça mets le pied comme ça yooyu day metti sama yaram bi mënuma ko ah mënuma ko mënuma ko te si tourne comme ça tourne ah j'en peux plus de bi lay ku ci baabul tourné gu metti gi da ngay xëy rek dee créso di laay góor ñu jaruñu tourné de yow na ñëw rek vite fait bien fait waaye tourne tourne j'en sais plus. Hmm, réew nga mais non réew ma je dis la vérité imaginez chérie tourne xam nga góor ñi léegi dañoo bëgg ay affaires yu bees naan la tourner tourne ah du noonu tourner sëggal <laughs> nga nii sa ndigg bi <laughs> mu la déedéet nii ngay sëggee nga nii <laughs> ay ay Sénégal comme comme comme barki yàlla say Sénégal comme dëkk Russie piip piip piip ah bilaahi lii dafa metti de il ment il te gâte mais quand tu cherches problème il fuit oui mais en fait moi j'ai compris le système c'est le système c'est quoi les hommes aiment nous mentir mes amours laissons-les nous mentir et au fond on connaît la vérité mais laissez-les nous mentir quand ils nous mentent là au moins ils sont ils sont ils sont sûrs d'avoir le pouvoir mais le vrai pouvoir nous appartient gis nga góor bu lay fen bu moom moom mi ngi lay fen de mais yow xam nga ni yow da xam bàyyi ko ci biir bàyyi ko mu lay fen comme moom loolu moo dal xelam di la fen moo dal xelam mais bàyyi ko mu def di dal xelam yow aussi nga def di dal sa xel nga fexe investir am say kër am say bien ma lan moo ci sama yoon ku ma fen c'est chez moi là moo ci sama yoon ku ma fen man nga fen ma nga ñàkk maa fen je suis chez moi boo deewee bu ñu ma joxul sama sama sama héritage sama héritage ngi nii samay doom boo leen yorul ma yor leen kër gaa ngi nii j'ai ma maison je bien nga fen ma nga ñàkk maa fen j'en ai absolument rien à foutre li ma bëgg mooy 21 heures na la fekk ci néeg bi nga sumee kase ma leneen 21 heures daal bu ma la woo tëdd si néeg bi xaar ma foofu tourne baisse